ndax Lamine bés bu demee ci bànn walla seex ngir baalul ak jarbaatam bi ñuy wax Omar ndax dinañ ko bal waaw wala déet bu dee gëm nga ko bësal wii bu dee gëmoo ko bësal noo mbokk mi bu dee gën nga ci page bi abonné laal cloche notification ndax mbooleem vidéo bu ñu dugal ngeen mën see jot ci lu gaaw yéen ñi nga xam ne dangeen bëgg bokk ci groupe Amour Brisé mën ngeen ñu contacter ci numéro téléphone bi ngeen di gis Omar jàpp nañu ko lu doy waar moo ko nar dal depuis ba ki nga xamante ne moo di ex copinam bi di aada yégee dafa genn est-ce que du fa jaaree sax gedd lépp lu nekk ci kër gi mais bànn bànni na bànni boo xamante ne boobaa daf koy profito ngir gën a naqaral ki nga xamante ne moom moo di aada ñoom ngir ñu indi jàmm ci kër gi lu yomb la surtout jigéen ndax jigéen boo ko amee da nga koy yërëm dawal ci moom li nga xam ne moo di compréhension seex mën na am mille sens ngir am aada ci bu fekkee may na ko jàmm mais fii ak mu ngi koy teg naqar góob ni dina am ki nga xamante ni moom moo di aada ndax à chaque fois daf koy maltraité te jigéen mérité na leneen lii nag jàngat la te aada li muy dund bëri na ay jigéen yu koy dund nekk fii ci réew mi di réewum Sénégal kon ngalawaay bépp naqar boo xam ne ñu ngi koy teg jigéen. dafa jot ngir ñi kay dakkal ndafa jot ngir ñi teral jigéen di leen bànneexal à chaque fois bul fàtte abonné laal cloche notification tax mbooleem vidéo bu ñu dugal ngeen mën see jot ci lu gaaw